moy que ni dañu di ay jigen nek yaay am lu fi xew récemment ñu ñak ci suñu ay doom donc en tant que yaay ñu ngi incliné wu devant mémoire xalé yoy nga xamanteni ni doxuñu woon lenn lu libérer Sénégal Abdoulaye Wade dafa am lo xamné daf ñu ko je ne marcherai pas sur des cadavres pour dugg bir palais kon nak ñun ñu né en tant que coalition droit bobu duñu ñu nangu kenn di ko salfaañe du n'ango nangu kenn di ko bafoué la grande coalition walu investir l'honorable député mam diara femme mu période pré-campagne Nous, ne nag ñun loolu duñ ko nangu ba tax sa libération immédiate et sans condition Moi, ak l'honorable député de Fall honorable député Cheikh Bara Dolly mais aussi ñu ne suñu frère Ahmed Aydara, le maire de Guédiawaye mais aussi duñu fàtte tête de liste département Ziguinchor muy Guy Marius Sagna ak suñu njabootu bop yi nga xamante ni mooy xale yi ñu jël tey jii embrigadé leen dugal leen ci biir kaso yi ñoom ñëpp la ñu leen immédiatement et sans condition aussi la grande intercoalition yewi walu dafa tiital ñi ñu jàkkaar lool dañu tàmm dégg si suñu mag ñu baax ñu ñu naan ku artuwul di nga àtte mhm. te bëgguñu egg ak ñoom si àtte ba tax na ñuy ñaan kilifa diine yi ñëpp ñu ngi leen di ñaan képp koo xamante ni sa baat porté na ndax defe naa ki ñu jàkkaarloo nag ay noppam daa fatt du dégg comme du dégg nag ñu ne xëy na buñ ko jaalee ci chef yi ñu ngi leen di ñaan ñu jóg wax ak moom ndaxte dëkk bii kat dañuy wax gaal gi waruñu ko suuxal te ñun ñaanuñu yàlla gaal gi suux ndaxte gaal gi kat fañ ko war a yóbbu dafa bari